léegi nag dañuy leeral segale yi léegi ñaari camp yi leer na camp bi nga xam ne mooy sàmm jikko yi ak sàmm camp bi nga xam ne moom mooy yàq jikko yi camp wu sàmm jikko yi nag dañoo taxaw pour ñu criminaliser ngóor jigéen camp wu yàq jikko yi nga xam ne président Macky Sall ak nguuram ñoo ko jiitee ak di lawal agenda LGBT bi kon jàpp naa ne législative yi nu jëm législative yu am solo lay doon pour sénégalais yi sénégalais yi ñoo war a jël seen responsabilité ñu sanctionner. massivement dans tous les départements ñu ñàkkloo liste bi nga xam ni moom président Macky Sall moo koy teg parce que assemblée nationale fa la ñuy voté loi yi te yéen sénégalais yéen a ñu voté yéen a ñu signé seen i pétition wax ne da ngeen a bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen kon su Macky Sall gagné ci élection législative yi ñu jëm seen càkkutéef boobu ngeen am pour ñu criminaliser ngóor jigéen dootul mën a nekk kon bu ngeen bëggee ñu criminaliser ngóor jigéen na ngeen voté massivement contre les listes de Bokk Yaakaar. ñoom ñu am ñoom ñooy bàjjenu góor jigéen ñi te euh, Jibril Waar mii di porté waat porté di jéem a porté plainte nit ñi moom ca la bokk kon na ngeen leen identifier bu ko defee kenn bu mu leen voteel ñu gagné leen partout dans le pays ñu imposer leen euh, une une cohabitation une majorité large à l' assemblée nationale bu ñuy permettre seen loi boobu ngeen ñu waxoon ni nañ ko déposé ñu jëlaat ko dem yóbbu ko assemblée nationale pour voté ko président Macky Sall nag li ko koy wax lu leer du ñu nangu mukk ñuy tëj ñi nga xam ni. ay jullitu yàlla lañ ñi nga xam ne nekkuñu fi lu dul di xeex pour seen réew ñi nga xam ne askanu Sénégal rek moo leen ñor te Cheikh Omar Diagne ci la bokk nga bàyyi leen ci kaso bi di bàyyi ay bàjjenu góor jigéen yu mel ne Jibril Waar ci mbedd mi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg c'est-à-dire réew mi duñ fi nekk ñi nga xam ne réew mi ñëpp naw nañ leen ñu teg leen euh, ñu teg leen ci biir kaso bi bàyyi leen ci biir kaso bi jël ñi nga xam ni ay nit lañ ñoo xam ni lawal agenda LGBT lañ fi nekkee ak lawal euh, donc góor jigéen ak dooleel góor jigéen lañ nekkee Sénégal nga jël leen di leen tatagal yow président Macky Sall loolu kenn du ko fi nangoo moo tax dañuy exiger la libération immédiate de Cheikh Cheikh Omar Diagne parce que Omar Diagne mérité wul nekk ci ab kaso parce que Cheikh